muy ci pétrole bi muy ci gaz bi muy ci tey mbirum pêche bi nañ xoolaat lépp parce que dañoo demoon ñaari nit wala ñett ci Sénégal ñoom ñooy bénéficié ay quelques personnes ñooy bénéficié wu ci retombé wu yooyu la accord mais pas tous les Sénégalais. man j'aime bien revenir euh, du président Bassirou Diomaye Faye bi nga xamante def na ko premier euh, à la date du 3 avril parce discours boobu euh, ma liiraat ci yenn ci ay euh, taxawaay boo xamante ne wala jëmuwaay boo xamante ne fa la bëgg Sénégal jëm euh, ci relation yi nga xamante ne ñu ngi koy am ak yeneen réew yi mais aussi relation yi nga xamante ne partenariat la ñu war koo am ak yeneen organisation yi nga xamante ne ñu ngi ci biir réew bu Sénégal parce que mu ngi naan à nos partenaires étrangers de tous hori horizon sous nu mu tudd sax mbir ba dem na de waaw xaaral may ma may ma ma wër ko mu nii ok mm-hmm. voilà mu ne la mu bëgg mooy ñu taxaw partenariat boo xamante ñoom niñ ciy gisee seen bopp ñun noonu lañ ciy gisee suñu bopp loolu nekk taxawaay boo xamante ne ñun on ne peut faire rien que rafetlu ko ci li nga xamante moom mooy euh, maanaam jëmwaay bi nga xamante ne foofu lañ jëm encore une fois xam nga je le encore une fois li mu bëgg mooy que suñuy partenaire ak suñu yeneen réew mu am li ñuy duppee considération boo xamante ne du am benn discrimination maanaam tey réew bu Sénégal relation bi muy am ak France. Mhm. relation bi muy am ak Allemagne. France ni mu ciy gisee boppam ci buy ñëw ci biir réewu Sénégal Sénégal noonu la ci war a gisee boppam ci buy dem ci France et raison pour laquelle boo ko xoolee visite yi nga xamante ne déjà le président Bassirou Diomaye Faye def na ko ci ci note bi nga xamante déjà ñu ngi koy wane mooy ils avaient euh, ciblé dix pays yoo xamante ne dañ koy def. d'abord pour montrer li nga xamante moom mooy seen ancrage ci panafricanisme bi nga xamante ñu ngi koy woote et au de ça maintenant on va davantage renforcer les liens nga xamante am nañ ko pour dem ci li nga xam ne moom mooy maintenant dans le a dit gis li nga xamante ne moom moo doon xew ci biir réewu Sénégal dafa war ressource minière ressource halieutique ressource beneen bu muy mënti doon ni ko réew di ñëwee di ko exploiter ñun noonu lañ ci war a gisee suñu bopp mu nekk loo xamante ne askanu Sénégal dañ koy yëg parce que mënuma comprendre nga dem dans le Kédougou à Saraya ak environ ñoom nga ne or ci biir réew Sénégal fa lay jóge ñoom ci seen bopp mënuñu gis seen bopp maanaam ñoom sax ñoom bokk nañu ci parmi les raisons contre les plus pauvres ci biir réew bu Sénégal ça c'est inadmissible donc li nga xamante ne moom mooy ci dispatching bi nga xamante ne ñu ngi koy def li nga xamante exploitation bi ñu koy def te mu nekk exploitation xamante ne jaarul yoon wala dafa am ñenn ñoo xamante ne ils s'en profitent au détriment des autres loolu nekk na loo xamante ne ci xamante ne Bassirou Diomaye woote na ko ak Ousmane Sonko et je réitère encore une fois cela ne rouge bu yeboo mais suñuy ndox ak géej liñ cee am mhm. mënuñ cee ëppale voilà quatre quatre minutes moom moo ñu Pape mais faaw ñu tabaski ñaata jour moo ci des bàyyi laay

maanaam a. Ah, dafa am mais waxuma xol bu xol bi neexul bu tabaski jotee rek <laughs> ñu tàmbali ak korité fête bi wax yokkum soble bi. xool cinquante ba trois xarit directeur dana ñëw xarit directeur dana ñëw pour kenn mbiraam dana joxe xar. <laughs> jugee na euh. comme ni ko Baye Ablaye tegee ne 150 la jugee ah, ba 300. noonu juróom-benn fukk fanweer ba jàpp juróom-benn fukk. ca Jolof ca Jolof waaw. bi naan <laughs> leeral bi am na solo lool ca Jolof. <laughs> billaay wax dëgg. c'est que li problème bi caal. Birahim li li nga wax ni moo wu soble. merci d'abord. Birahim am na ñoo xam ne génn nañ fii seen soble si de côté euh, joo maanaam Diofior wala Diofior du Diofior sax de. Euh, Birahim Jolof fan la waa Jandeer. Jolof fan la bokk. Jolof. Jolof ce que du côté. Jolof. Sedan. Louga Linguère jëm Kébémer. c'est dans dans la région de Louga. Louga